xol Aya Aïcha. merci beaucoup Papa Salam yàggal mu yàggal tuuti rek nous sommes en direct sur la 2 merci beaucoup Papa Salam merci beaucoup euh, parce que tey dañu nekk tamit ci soirée sargal jigéen hmm? am ay jigéen yoo xam ne tamit toog nañ fi euh, Bébé Rose initiative bi nga xam ne moom nga indi Sénégal hmm? muy bijou yoo xamee ne en fait c'est plaqué or garanti nu mu ñëwee. ñu bàyyi la nga nuyoo bokk téléspectateurs yu ñuy seetaan après nga expliqué ñu. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna. nekkati mhm, tuuti sa micro bébé. man Rosalie. Mhm. directrice de Dichop. numéro un de la vente de plaqué au Sénégal. bon ñun ñu ngi yëngu si jaayum or pur plaqué. Euh, argent et tout ce qui est euh, zircon. nous reproduisons tout ce qu'il y a. tout ce qu'on voit sur, euh, en, en, on reproduit ça en plaqué pour permettre aux gens qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas acheter de l'or, de, pouvoir porter les mêmes bijoux, mhm. mais en plaqué. il n'y a aucune différence. Mhm. Si vous peut sortir un autre bijou pour l'éclat. comme on voit. Euh, kuus euh, kuus dafa mel ne bii de yow laa ko yéene ndax li ma gis nii sa yëf la expliqué ñu bébé. comme vous voyez ça c'est du avec de l'or dessus. Uh-huh. Euh, dañ ko sóob. waaw alors amul benn différence ak or. mënoo ko takk fenn ñu ne la takk or. dëgg la y a pas de différence. Mm-hmm. parce que bu ñu gisee macha allah yaa ngi takk or bu rafet. Mm-hmm. dañu xool suñu plaqué différence bi bëriwul de. dëgg la non amul benn différence ah, bi ju ngoone Bijou ñëwal fii kaay fii kaay Bijou moom bii yow laa ko sargale yow <laughs> sama yëf la ràngu li maa ko moom tuum <laughs> dugg leen ree del ree del ree li yow de xam nga ne moos yi nga may defal yee ji gën a tuuti dëggantaan nga may jox chaque weer tàccee leen ma ko waaye tàccu leen ma ko bu baax a baax a baax parce que jigéen bu mën góor la donc tey nag suñu bés la faaw ñu sargal la te ci nga bokk nag ah voilà te télé bi da ci am waar bu bag a mag a mag looy liggéey loo wax bébé bay ba après ñu seet ko mu ngi ci biir biir ju doy na euh, bu ma ñëwee nii nag sama gauche bébé Rose alma rek s'il te Mame Bassine Adja toogaay yàgg na ah, ñu ngi jégalu bu baax a baax mm. ah, di kontaan ci teew bi di la bàyyi nga nuyu bokk spectateurs yi Adja maa ngi nuyu di nuyu képp ku fi toog di sargal jigéen ñi fi toog ñëpp ndax ñun chaque jour dañu war di sargal mm-hmm. rawatina tey mm-hmm. muy weeru mars tey di 11 mars sama anniversaire mm-hmm. may ñaanal jigéen ñi fi toog ñëpp ndax léegi foo daan dem fekk fa góor dëgg la léegi boo demee fekk fa jigéen mu toog dëgg la tabaarikàlla jom ji ci góor yëpp mu ngi ci jigéen ñi ñaari loxoy takk tubay waaye ñaari loxoy takk sar ma ñëw léegi fekk fi bébé rose mu defal bijou yu nice di teel a xëy di guddee wàcc yow mii ngay teel a xëy di guddee wàcc tabaarikàlla kontaan naa ci yëpp di kontaan ci la 2STV di kontaan ci bijou ngoone di kontaan ci jigéen ñi ma fekk ñëpp ñëpp ñëpp bég naa ci ñëpp sargal naa ñëpp kontaan naa. noo gisee tey la nouvelle génération bi nga xamee ne xale yi maa kàr macha allah dañoo mën fecc. waa xale yi ñoom moom macha allah. faat waree ngi nii toog ànd ak groupe am xale yi di fecc lu neex tabaarikàlla ñoo leen ci jiitu waaye tey bi ñu ñëwee mhm. suñu xel dal na ndax lii ñu man ñu léegi mënatuñ ko tabaarikàlla xam naa waaye leer na ma boo jógee boo soobee nit ñi kontaan <laughs> loolu lu ma leer la loolu am na mais kuy fecc ba gis say rak mhm. da koy bàyyeek ñoom sama rakk tubaar fa kàlla macha allah mhm. ñu ne ci aar bi nag xam ne ñoo leen ci jiitu ñu jox ñu cër fonk ñu respecté ñu ma leen fi ñu bëgg a egg yal na leen fa yàlla eggale bég ci ñoom ñëpp mhm. kontaan ci ñoom ndax bay Demba su sàjjee cool mi ak ndeer mi xale dañuy wane seen bopp waaye papa salaamit su sàjjee cool ak ndeer dañuy wane seen bopp kontaan naa ci xale jigéen merci beaucoup waaye tabaari fa kàlla biisu ne leen ku dugg ci mbarum paaka doo defee nu doo tëddee wet xolal rismon bisu ngoone girif la ci réew mi I don't care aja ku man sa tax ku dara sa ndaya tax njëkk a juddu njëkk a kenn du mel ni yow nga njëkk a juddu njëkk a dara Adja doom ju fi juddoo ni la bàjjen koo fase mu dem nii leen taawu taaw taaw bari bokkul ajaajalooy taaw déggal lii bijou rismon njiis ngoone girif la ci réew mi I don't care ñëwal ndaya sama rakk ji ndaya bote xoolal sama rakk ji Ndeya Beauté sama rakk ji daa ñëw léegi sama kër jox ma baag gu sama raq ji yàlla yàlla yiir dafa la cat dal suñum xel sa yaaya liggéey lii affaire bi nday ci la Baye Demba Baye Demba dégguma dara seng-sengi biram géey Baye Demba Ndeya da ngaa ñëw sama kër léegi takkal ma or yal na la yàlla lafal la cat suñum xel sa yaay a liggéey affaire bi day ci la na mere sa yaay ndaya kuy mere na mere sa yaay aka jongama aka jongama aka jongama nilin mbasa mbasa kokoy ma mbasin bay demba bisu ngoone waa cinq cinq rythme nee na dan lay sagal ajuma liggéey bu rafet bi nga am fii ci Sénégal Mamadou Lamine Fall kaay loolu moom maa ngi ci biir kii taxaw nag mooy Mamadou Lamine Fall di sama rak di xale bu baax di sama caatu yaay xale boo xam ni lépp lu ma dugg mi ngi ci bàyyi ah, ba xale yi nee nañ sabar lan wax mama day wax nga jox ko gaay dugaat ceebu jën nu tëggaat tuuti ndax wax ci bëri na du noonu ayca Mamadou Lamine aca aw salaam di la ziar di la bëggee di bëggee ñi fi toog ñëpp ah di bëggee Baye Demba Seng-Seng sama xarit sama doomu ndey sama jumeau li ngay def naaj lool trop li may tëgg nag salaam du génn biisu ngóone ak Adja Diallo ndax biisu sama ko ñu kër Adja euh, maam Adja Ndeye Niang fa la yoroon salon bu mag waaw baax lool bëgguñu lool kon bu loolu amee ndox du jéggi yoon du ma jéggi Adja Diallo du ma la jéggi li may tëgg yenn yéen ko moom. kookoy Mamadou Lamine Fall am li mu ñëw waa cuisine bu 2STV ceeb yi neex yi barki dem ngeen ma jox bu yàbbu ñebbe bu baax ngeen baax bëgg ma dem njaay ànd bu yàgg bi dëgg la moom mooy roqaya ceeb bu xenq naa bi ceeb bu weex keneen ki domodaa yéen yomal xiyaam sax yéen a ni toggal ñuy lekk. maa la wax lii ñoom ñooy waa 2STV yi ñoom ñoo waral lii gars yi nag dañ ni doyaluñ ci ceebu jën bi ndeyaa kontaan nan ñi nga àndal rafet nan fii ay xale yu rafet nekk mooma ceebu jën bu tàng jër rangu jóg bis nga ñu dem ayo nan naa borom appartement yi xale bu baax bu gore bi am ngor gore tabe lu ma xew la yaa ca jiitu yàlla nga gudd fan na naa sama doom ji ayca waaw waaw mbalax mu fàtt tara laa bëgg gaay kin saa mbax roo mbax giis ayca waay ceebu jën ayca waay ayca ceebu jën mane ne loolu ah ah, ah ah ah ah ma ñëw ceebu jën lan la wax ceebu jën ceebu jën ayca ayca ayca ayca fecc kat ayca waay